Euh, sans plus tarder on va enchaîner ak euh, seen rubrique euh, Jóg Job Jóg Job nag yéen ñi nga xamante ni yéen a am job nangoo liggéey yéen lañu ñu ko jagleel c'est parti alors pour Jok Job de ce matin ñu ngi encore joxe waat ay CV yoo xamante ni képp koo xamante ni am nga liggéey booy joxe bu fekkee gis nga euh, ñi nga xamante ni euh, ñoom ñooy jàllale ñoom la ñu jàllale seen ay euh, annonce CV bu ngeen leen soxlaa ngeen dem jëli leen on doon donne d'abord ni ngeen di def pour ñu jot seen ay CV. alors yéen ñi ut liggéey ñëpp espérer que mun ngeen ko am à travers la Télé Futurs Médias. Mhm. mun ngeen envoyer seen CV ci yeewu leen tfm arobase gmail com yeewu leen ñu ngi koy bindee y 2 e u l 2 e n t fm arobase gmail point com du pour ñi jàng kese dañ koy rappeler tout le temps ñiy ut liggéey ñëpp ñëpp la concerné par mu ngoog voilà café balaa café balaa baax tàng te am purit <laughs> am na purit waaw maa ngi dégg furux <laughs> xam nga dinaan mu naan furux il y a rien de tel boo xëyee ku seede loolu <laughs> alors Awa Diagne Awa la ñuy njëkk a euh, joxe euh, CV am Awa Diagne euh, dipl dernier diplôme ah Jassen waaw Mado Awa Jassen Jassen ah non dama jàkkaarloo écran ah, ah d'accord voilà <laughs> alors Awa ah Jassen dernier diplôme 2013 2014 master en en marketing et management des affaires internationales à l'ISP ex-institut ak UCAD expérience professionnelle décembre 2013 stagiaire au groupe Futur Média en mm. qualité d'agent marketing et commercial à la télé Futur Média octobre 2000 2011 2013 mai 2013 plutôt stagiaire à la Société Générale Banque du Sénégal euh, en qualité de promotrice du produit euh, Yobantel. Avril 2011, juillet 2011, stagiaire à Imperial Tobacco MTOM Toa, direction commerciale et marketing au service promotion. Alors moom Awa Dia Sène ku ko soxla mën nga ko contacter ci 77 425 31 94 ou par mail diaseneawacollet@hotmail.fr. Euh, deuxième CV bi c'est le CV de Adja Aminata Kébé Adja Aminata Kébé son dernier diplôme c'est un master 1 en marketing et management c'est en cours euh, et ses expériences professionnelles juin ba septembre 2013 elle a fait un stage à la Sonatel pour le projet Matrix donc facturation en ligne novembre ba 2012 ba février 2013 elle a fait un stage à l'agence commerciale de la Sonatel de Kaolack et puis août 2011 elle a fait un stage à l'agence commerciale de la Sonatel de Kaolack encore et son bu ngeen ko bëggee contacter mun ngeen ko woo au téléphone 77 663 64 61 wala ngeen woo ko ci 3 33 945 14 12 ou par mail minakebe7 arobase hotmail point com keneen ki ci topp mu ngi tudd euh, Lionel Audrey euh, Coly dernier diplôme brevet de technicien supérieur automatique expérience professionnelle 2013 2014 responsable du matériel Clair Afrique 2011 2013 consultant associé euh, Le Rossel société euh, à, voilà responsabilité limitée voilà 2008 2012 consultant consultant consortium de service CDS yéen ñi ko soxla mën ngeen ko contacter ci euh, par mail ci euh, ci Jim Gibson arobase gmail point com ou par téléphone ci 77 700 539 wala ci 77 315 54 09. donc Pape Cheikh loolu moo nekkoon CV yi ñu jot tey chaque jour dinañ jàllale 3 CV yéen ñi seetaan mun ngeen envoyé toujours seen bos ci adresse mail bi may joxe yeewu leen tfm arobase gmail point com donc yeewu leen ça s'écrit y 2 e w u l 2 e n euh, tfm arobase gmail point com Pape Cheikh dama wax tamit ñi xam ne dañu soxla kuy liggéey. Mhm. pour ñu ko tamit parce que boo ko jaaralee fii taf projet comme ça nga jàllale ay entretien et puis choisir kenn si euh, gars yi gars yi ku ci xëy boo seetaanee rek boo boo boo fi ñuy joxee liggéey nga dem fa waaw mm. ah keroog Mado joxe na liggéey ah parce que moom neen dafay wut jànq ak ex ak mais ex jànk bi muy ut ba léegi man envoyé gu ma CV jànk <laughs> moom waxul làkk kese neen na koy bind di ko lii wala lii yi ma di bind mhm. kon bind nga soxla ah, la soxla wala ku koy làkk tout court déedéet na nga koy làkk di ko bind na ko <laughs> mu ngoog ah 7h20 euh, euh, mu nekkoon euh, Jok Job ce matin ñu àndandoo ak yéen fàttali leen aussi programme mu tey bi ci télévision Futur Média fàtte bu ñu demee ba 11 comme tous les matins daañu àndandoo ak Adja Degen yaay ak ñi muy àndal ci seen émission wareef tey nag thème bi dellu si waat euh, di maraboutage 13h ngeen ànd ak rédaction euh, bu euh, TFM ba léegi ci xibaar yi ci wolof et puis c'est 15h30 ah voilà. 13h30 di ngeen am rediffusion wu euh, li ci penc mi voilà 13 h la ñu koy rediffuser euh, tey bu ñu demee nag euh, ba 16 tey seetu bi di ngeen ci ànd ak Père Boukhar moom ak doyen comme àllarba bu jot ce sera de 16h 19h30 vous aurez droit au bloc d'info mooy ñëw day dem ba 20h30 une heure temps non-stop ay xibaar yu wér te wóor ak rédaction ba léegi

am euh, firi gént et puis bu leen fàtte bu deux heures du matin ñu euh, joxaat leen rediffusion euh, wareef bi am tey ci suba bu onze jotee ak yaay Adja donc en loolu mooy programme tey bi on rappelle encore que vous n'avez suñu ay programme avant le journal bu fekkee am na suñu xarit yu yeewu ba nekk ci téléphone bi pour ñu jàppale leen ci seen i seen yu baax mën nañu ko jël léegi 88 628 65 65 allo alo allo allo allo un allo deux allo trois kooku amul chance dañ jël ki topp ci moom ci 88 628 65 65 88 628 04 05 wala 88 628 22 22 man damaa waroon def ni ñoom sax ah, dem taxaw ci ginnaaw woote waaw waaw woote ku ah, xanaa waaw yéen xanaa après ngeen ni maa ngi ci ginnaaw di sport xaw ma di xaw ma lan quoi wala maa ngi defar plan plan yow la ñuy cadré xam nga ah. léegi buñ la cadré man mun naa jóg maa gën a jege fii nii wala ma <laughs> ñu génn woote <laughs> waaw organiser la comme ça comme ñu mën ci wala ah. wala wala wala garaawul. xalam du ci jaaw yaakaar barke ba yaay borom ah. waaw ñu njëkkee ñu njëkkee dépensé ci ñun waaw waaw waaw yéen yéen ñëpp ku ne dépensé ah ku fukki junni. ah yaris. ndox du bu baax nga ci. ndeysaan. te kat ginaar rek la ciy xalaat. sama xarit. mais lu bëgg ginaar. ginaar boo gën ci naa itam ganaar. dafa lekk boo ko lekkee da ngay am wërsëg boo boo xëyee njëkk koo lekk. non naat naat naat wala ginaar naat naat naat. pentat on m'a dit on m'a dit on m'a dit ginaar. naat par contre dégg naa dafa baax pour euh, euh, yaakaar bu bañ a tas. naat mm. moom day naat rek comme naat moom dunq bi sax boo amee. def ko sab nafa. def ko sam nafa xobu naat. dunq bi dunq si rek def ko sam nafa bàyyi foofu. <laughs> kese ah kese boo ko defee sa poos nag. day na mooy nafa. da ngay dégg jàmm. secret ngi ci tamit lekk ko te doo damm benn yax. waaw waaw kooku ci ginaar yi dégg naa ko. Mm. lekk ko bañ di ay yaxam xam nga ginaar dafa saf. léeg-léeg nga lekk rek jël naan nii di sotti naan ah. waa Pape Cheikh. Hmm. man de dama ñuy yàqu ginaar ma dafa neex ma ah, ko c'est vrai ah. dara dàqul seeñu fajar. waaw dégg nga loolu fajar. bon essayé leen lépp ah baax na ou pas mais essayé leen ko dégg naa xëy njëkk lekk ginaar njëkk a dugal sa ginaar sa sa lamine. Hmm. il paraît que baax na quoi hmm. voilà donc. essayé leen ko léegi nañu exiger ginaar ci plateau bi kay chaque ah. matin benn ginaar bu ah. ñëw commencé di ko. ay poor ci wërsëg <laughs> <laughs> mu ngoog ginaar baax na ginaaru suba teel yaa rien de tel nga nga tàngal sa lu baax même boo ko reeree biig boo xëyee tàngal ko ba sa yëf xooñ ah tàng jër nga mën a lekk euh, loolu itam defe na am na solo li tubaab naan ça ne peut que vous apporter du bien voilà ah <laughs> ginaaru fajar bu fekkee am na ku nekk ci téléphone bi ñu jël ko il nekk que 7h25 voilà en attendant le premier journal allo allo allo est-ce que suñu yëf euh, suñu yëf a ngi tàkk fii. Mhm. Ah. waaw allo regarde ndax yëf yëfu Pape Cheikh bi <laughs> voilà est-ce que sama yëf ngi tàkk. <laughs> may taal tamit. yéen a taalal Pape Cheikh. Eh, yow ah. GV mon frère demee taal yow tamit ayca. 628 euh, 65 65 88 628 04 05 wala 88 628 22 22 alors tey dañuy commencé 10 000 jëm 100 000 francs kan moo nar a dal euh, ci enveloppe bi ñuy séddalee xamaguma ak euh, fu ngeen mënti nekk ci euh, Sénégal mën ngeen a woote yéen rek la ñuy xaar donc ki dugg léegi nii su ma compter ba 3 boo waxul ñu jël ki topp ci yow voilà 88 628 65 65 wala 04 04. wala 22 22 allo. allo. waa kay am na chance. Souleymane Seck. na nga def. sant yàlla alhamdulilah Souleymane Seck ba jàmm nga fanaane bu baax. tey teel nga yeew de. ah moom mooy te moom teel a yeew rek. kon léegi teel a yeew par force la. par par force la la wax. li mairie naan njaag par force la. waaye léegi de kon teel a yeewu par force la comme ça nga mën a def sax say débat déeb xam nga teel a teel a yeewu mën a julli mën a ñaan suñu borom da lay jàppale ba sa bis neex. Hmm. incha loolu loolu daf ci am solo fan nga dëkkee Souleymane. maa ngi dëkk Yarax. yaa ngi dëkk Yarax. oui d' accord fan ci Yarax. kii ab tableau Serail. en tableau ferraille waaw côté bi ñuy góor góorgóorlu. Mm-hmm. foofu la ñu joué tam tableau ferraille théâtre voilà. Mm-hmm. tableau ferraille waaw ah, góor góorlu côté kapaala c'est vrai ah d'accord wax nga dëgg waaw dama doon jaay xam-xam bi xam nga yenn saa yi ñun animateurs ñu toog ci télé yi di jaay xam-xam rek. <laughs> lu ñu wóorul lu ñu fekkewul <laughs> alors Souleymane. yow lañuy ñuy déglu Souleymane yow yaa ñu njëkk a woo ce matin. yow la ñuy déglu waaw. da nga ci bëggoon a barkeelu. Hmm. incha allah yow yow yow da ngay xëy di joxe dépense am déet. non man moom du joxe moom. doo joxe. non loo xewle. célibataire la. voilà célibataire <laughs> kat. fanaanoo ah, kenn kenn fanaanoo ko célibataire yi am jom léegi dañuy xëy di jox seen yaay dépense. dëgg la di di di di yow xanaa amoo papa yaay ak ay mbokk yu nekk ci biir kër gi. ankay ankay mu ngi mu mu mu tax doy joxe dépense amuloo. non am voilà oui. mais est-ce que wut est-ce que wuti nga ko. waaw maa ngi jëm maa ngi jëm. lan mooy sa qualification lan lan nga mën. man électricien la quoi damay jàng apprenti la. ah da ngay jàng. waaw ah, fooy fooy jàng électricité. Dakar. Euh, avenue. d'accord ci école nga koy jàngee wala da ngay jàng noonu rek. non jàng noonu la rek. da ngay jàng noonu rek. waaw waay. Oh. bon d'accord ok c'est pas trop clair mais bon yàlla <laughs> yàlla baax na. <laughs> léegi amul problème amuloo liggéey comme li yi naan góorloo yattuloo mais teel nga yeewu quand même euh, euh, dinañu la euh, dimbale nañ la may argent de poche boog. pour sa mm-hmm. journée neex dégg nga Souleymane. Mm. incha allah ah dinaa la jox dinaa la jox dix mille yoo xamante ni comme yaa ñu njëkk a woo. du la neenal. Euh, euh, li ma lay jox nag boo ko defee sa poste mun nga au moins dem ci sa yaay jox ko 5000 ne ko tey mercredi bi man maa joxe dépense d' accord. incha allah voilà tu gardes la ligne comme ça ñu jël sa numéro téléphone ak sa yu baax bu ko defee nga mën a jot ci sa xaalis balaa naaj. merci bonne journée merci bonne journée ñu seen waa kër yëpp foofu ca Yaraax. 88 628 65 65 wala 88 628 22 22 et puis lii neex na ah. Mm-hmm. balaa ngay wuuti. nga mm-hmm. woote am. dëgg la day neexal journée. Mm-hmm. ñun de fii waaw voilà li kay kukaay la exactement waaw dañ lay soqi. dañ lay soqi dañ lay soqi waaw. Ah. dañ lay soqi la ak ñaari junni. Pape Cheikh dañ lay soqi. Diallo Diéry. waaw. soqi <laughs> man ma nag dàqantali. <laughs> waaw mu baax. dëgg la Pape borom ngeen di. Pape du bàyyi yoon. man ngeen di wax. xale bi wax. man ngeen di wax lu baax. moom mooy xaalis. nga mooy Pape carte gab. nga ni la Pape borom nafa gi. <laughs> Pape man ngeen di wax lu baax. pap mu yor góor ñi. pap pap pap bi dafa géer. waaye déglu ma leen bu ma ibbi gaa waaye bu ma nee na lit. <laughs> ah non soo bëggee moo ibbi la léegi nii ah. xam nga euh, bañ ma tëj ma rek te neenal ma. bañ maa neenal non tëj baaxul kata tëj baaxul ah nit moom da nga koy ibbi rek. mais bu ma tijji. waaw nit da koy tijji waaw ibbi ma ibbi ma. voilà naa la ibbi bàyyi ma ak lu baax rek te bëgg ma la neenal voilà yow yaay sama xarit <laughs> Madeleine madame Ndiaye. mu ngoog yéen ñi bëgg ñu ibbi leen ah, neexal seen bi seen n'hésitez surtout pas partie bi yéen ko moom wala émission bi yëpp yéen ko moom ah